Euh, merci beaucoup Abdoulaye Cissé s'il te plaît bay Abdoulaye Cissé ah mais Abdoulaye Cissé quand même merci beaucoup si on te demande gentiment d'arrêter voilà merci beaucoup suñu gan la te boo amee gan nu voilà dañ koy dañ koy may njekk Ibrahima Baba Sall premier vice-président Assemblée nationale maire bu Bakel merci beaucoup bonne journée à vous monsieur le maire alors ñu dem ci l'observateur ak li mu xëyee tey jilee euh, manœuvre politique Macky Mamboy Diao le mystère d'une audience le président a rencontré discrètement le maire de Kolda mais Abdoulaye Cissé quand même mais c'est quoi ça maintenant Abdoulaye Cissé ah bah Manœuvre politique, Maki Mamboïdia ou le mystère d'une audience. Le président a rencontré discrètement le maire de Kolda samedi à Mermoz. C'est à lire à la page 6 du journal. Et puis soutien à Amadouba, diagnostic du oui euh, ni non, NOM de ADD. Abdoulaye Daouda Diallo, le mission volontaire, la volte-face et le jeu d'ego. Moi, Lindon Wartane, 5, Mingi page 5, bataille présidentielle 2024, candidature à la présidentielle. Chertidiane Gadjo, l'interview démaquillée, page 4. Euh, journal L'Observateur, uniforme à l'école plus de 4 millions de tenues pour la rentrée scolaire page 4 euh, ak avis yi wutee ci ñi yëngatu ci wàllum njàng bi ak pertinence su projet bi lii nag escroquerie au mariage il fait miroiter un euh, mariage de rêve à la gérante de tontine maanaam ki dafa yoroon natt mu promettre ko xañ na da koy takk ak lu ni jël xaalis ba yépp daw ak moom dem Dubaï toog foofu ci page 7 la nekk ci wàllum tàggat yaram face to face ëmm Tafatine Modou Ama euh, foire kese lañ fa jisoon ñu dem ci euh, record ak li mu xëyee tey ci altine bi àpp laay bu dee noppi na record tey ci xëtamu njëkk wàllum tàggat yaram ak Sadio Mané nataalam buteur avec Al Nassr et de 6 pour saajo muy juróom-benn but yu mu dugal euh, et puis mondial U17 Serigne Saliou Dia coach gaynde yu ndaw yi nee na ñoom dañoo tombé ci benn groupe bu méttee métti ci page 6 la koy expliquer Ligue Pro saison 2023 2024 coup d'envoi décalé au 21 octobre euh, page 4 et puis basketball Euh, N1 masculin final playoff AS un onzième titre et la balle basketball Africa League Africa League euh, basket euh, coupe de la ligue final ville de Dakar maanaam mu am ñaareelu trophée lamb bi ñu doon waxtaanee sànq face to face Modou Lo Ama Baldé rendez-vous gambien bi fay tourner au vinaigre le RV fay tourner au vinaigre page 12 bu journal record Ablaye Cissé gan bi jeexal nañ sama doole wax dëgg yàlla ñu ñëw jàll ci ñaareelu pàcc ci météo express bi. La météo en express.